asalaamaaleykum asalaamaaleykum euh, internautes internodi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tour ak sa centre je me présente def naa ñenn ñi xam nañ ma ñenn ñi xamaguñ ma euh, je m'appelle Momar Talla euh, je suis le manager de MTM Immobilier en di rek ci gëj a déggante bi nga xam ne gëj a déggante di wax ne du suñu coobare dañoo nekkoon ci ay xat-xat yee xam ne moo tax gisu leen ñu fan yi balaa ñoo dugg ci sóobu ci waxtaan bi muy waxtaan bu am solo ba nga xam ne internautes yi ñoo ñu koy laaj ñoo ñu wax souvent monsieur Mbaye euh, yoon la euh, ñu xam MTM manam euh, quels sont les services de MTM tay la ñu ñëwoon waxtaanee tey waaye balaa ñu see dugg ñoo xam yeen le client est toujours roi dañu bëgg indi leen benn conseil conseil bi c'est par rapport ak bo indi jënd il faut toujours ngeen di am ce qu'on appelle autorisation de lotir bala ngeen di jënd parce que ñu ci bëri tay ñu ngi ñuy wo pour ñu yobul leen bàyyi mais mënuñoo dem bàyyi. récemment bi ci mujj rek mooy am na ku ñëw ba suñu bureau euh, pour ñu defal ko bàyyi te moom bi mu jógee Modou Modou la bi mu jógee Sénégal bi mu jógee Italie yàggul mais mujjul dem bàyyi parce que am na zone yi nga xam ne zone yooyu c' est impossible dem fa bàyyi parce que maanaam autorisation de lotir bi amul kon dafay bokk ci booy jënd terrain am na ay détails yi xam ne nekkul rek euh, terrain bi leer na nangam nangam mais dafa am ay détails yi xam ne c'est administratif bu ëllëgee loolu moo lay permettre que sa terrain mën dem bàyyi sans quoi sa terrain du mën dem bàyyi loolu ku ci bëgg lu leer mën nga rapproché wu ci cabinet bi bu ko defee ñu mën la cee édifier MTM euh, lan lay def ku ci nekk xam MTM am na lu muy dundee donc quels sont ces services yi nga xam ne MTM moom lay def euh, ci services yooyu bokk na ci li ñuy wax régularisation en voie de bail maanaam boo amee ces délibérations da nga ko war a yóbbu bail loolu d'accord nañ ci kon donc waxtaanee woon nañ ko ba pare boo amee sa délibération yobou ko bay koku dañ ci waxtaanoon ba paré maintenant euh, ki koy yobou bay waxon na né bay amul benn frais boy fay à part l'enregistrement nak euh cabinet bi da lay yombalal yow bo ñëw ci cabinet bi cabinet bi moy jël sa dossier doxal la manam l'ensemble des démarches yi nga xamné war dako def parce que am na xamné amuñu jot ñi ngi à l'extérieur ñii ñi ngi au Sénégal sen liggéey mayuñ la ko mais cabinet bi liggéeyam lan la mooy Sow Bongo liggéey bi mooy c'est un cabinet bi nga cabinet d'affaires là cabinet immobilier là day conseil day def tout ce qui est service yow boo ñëwee ci cabinet bi indi sa dossier ñun mën nañ la doxal ba yóbbul la ko bàyyi ba nga jot sa récépissé de de bàyyi am nañu naan ba mais am ay parents bi nga xam ne war na ko mën dox mais on a vu souvent que ne ay nit dañuy woo yi nga xam dossier dañ ko joxoon seen parents mais ils n'arrivent pas à régler le le problème le dossier kon donc parce que ñoom xamuñu exactement les canevas xamuñu exactement yi nga xam ne nekk ci biir

donc terrain bi amagul carte d'identité te loolu dafay gën a sa terrain bu ko défé yow euh, nga mëna xam sa terrain yow administration euh, xam nako moy le la NICAT kon bo bëggee dem NICAT bo jaaree ci MTM immobilier dañ la wutal NICAT au niveau des services des impôts et domaines dañ def lu ñuy wax enregistrement terrain terrain nak boko jëndé jëndee da nga ko war a enregistré boo wul da ngay am ay pénalité parce que terrain boo mëy def jëndee tey suba war nga ko enregistré enregistrement bobu mo lay dimbali bu ko défé yow ëlëk manam état du ñew impôt et domaine du ñew dila la wax ne par exemple sa kër gi amna problème kat musoko ko enregistré nangam di la créer problème ndax investissement damay faral di wax boko jëndé dang koy ñàkk investissement bo defee un million sax ba nga ko mën a ñàkk def ci buñ la lajé un francs wala ben cent quinze wax dëgg yalla pour defal la day démarche lu melni ni wala enregistrement war nga ci mëna a taxaw balaa ngay perdre sa investissement dañu def den visite de terrain visite de terrain moy amna ñi nga xamné jënd nañ terrain lu yag bàyyi ko à l'extérieur ñëw dem à l'extérieur mais ba léegi seen terrain xamuñu si lu mu nekk terrain bi dama ko doon faral dafa nekk dépotoir d'ordure wala boog terrain bi xamuñu sax des fois am na ku ci nekk di bëgg tabax wala am na mi ngi bëgg mu ngi si yoonu litige léegi loolu nag pour éviter ko boo ñëwee ci MTM ñun dañ la dañuy defal visite de terrain xool la sa terrain fu mu toll loolu projet boobu lancé woon nañ ko bu ku ci bëgg am lu leer maanaam da nga rapproché wu ci terrain bi également dañuy def lu ñuy wax état des lieux état des lieux mooy lan moy bo bëggee jënd immeuble mo xam da nga bëgg jënd immeuble mo xam da nga bëgg jënd terrain ak lo mënti jënd boo njëkkee ci MTM euh, immobilier dañ la koy doxal dañuy dem xolal la ndax terrain bi amul litige ndax suuf si du ta ndax ndax ndax ndax bu ko défé yow bala nga jënd am na benn rapport buñ lay envoyer bu ko defee buñ ñu la amee envoyé rapport bobu di nga mën jënd c'est-à-dire ça se résume en deux mots une vérification administrative euh, autant pour une vérification administrative autant pour moi et une vérification physique vérification physique bi moo lay permettre nga xam ndax suuf si di la taa vérification physique mooy tax nga xam ne ñaata ñoo fa dëkk vérification physique bi mooy tax nga xam ndax suuf si ah foofu amul problème d'escorte wala amul problème urbanisme etc., etc. et cetera loolu boo visité wul ko xam donc ñun dañ la koy defal à ta place boo xam ne nekk nga fi comme nga bañ fi nekk. Euh, également dañuy def lu ñuy wax achat vente et gérance maanaam bu da nga bëgg a jënd terrain ñun am nañ ay terrains yoo xam ne dañ koo saytu. terrain yi xam ne ñun ñoo demal suñu bopp xool kayit yi saytuwaat ko bariwul nag ku ñu ko laaj ñu jox la xool ko suñu bopp ba pare teg ko ci taawal bi di ko jaay du ñu yow xool ko jaay noonu non non dañ koy dem saytuwaat donc ko jaayal produit yi suñu bopp. également y a aussi ce qu'on a vente booy da nga am sa bien booy jaay moo xam parce am na ñi xam dañoo am kër bu ñuy jaay wala boog dañoo am benn terrain wax dañ ko jënd dañ koy bëgg a jaayaat wala ñoo bëgg a jaay terrain bi tabax bële. loolu boko beugé bëggee ku la ko jaayal bo ñu indilee kayit yu lèr nañ la ko jaayal ci prix bu baax bé xam ne ñun dañuy jël suñu pourcentage donc loolu ku ci bëgg am loo jaay mo xam kër la mo xam terrain la mën nga jege ci MTM immobilier. dañuy def également lu ñu wax la gérance la gérance manam bu am nga sa kër yaangi Sénégal wala yaangi l'extérieur bëgg nga ku la ko luweel teg ko dans de conditions yu lèr ni ne nañ bo ñëwee ñun mën nañ la ko géréel defal la gestion locative bi chaque mois ñu verser la xaalis sa banque.

manam ci condition yu baax parce que am nañu ay ingénieur ay topographe yëpp am nañ ko ay ingénieurs yi nga xam ne yu mucc ayib yi nga xam ne euh, dañuy liggéey ak ñoom ñoo ñooy la ñuy liggéeyal bu ko defee ñoo lay tabaxal ba clé en ba nga yor sa clé en main surtout moodu moodu yi nekk à l'extérieur bëgg ku leen tabaxal donc ça fait l'occasion MTM da koy def bu bëggee ku la tabaxal mën nga ñu woo bu ko defee fondement ba keroog nga R plus 2 R plus 3 bu ko defee ñu def suivi de chantier lañ koy wax mooy suivi de chantier suivre le sa chantier ba keroog muy egg dañuy def tamit li ñuy wax construction wax nañ ko fi BTP euh, ak li ñuy wax level topographique euh, level topographique mooy jënd nga sa terrain da nga war a génnee plan bi le plan maanaam boo soxla euh, un géomètre donc nous nous sommes là pour ça pour faire les levées topographiques defal la levée topographique yi maanaam on a un géomètre on a un cabinet géomètre agréé bay xam ne géomètre boobu moom mooy taxawal dañuy liggéey ak moom bu ko defee moo lay defal sa levé yëpp après envoyé la sa CD envoyé sa lépp envoyé sa plan sa lépp bu ko defee yow nga mën wut sa nikat parce que sans levé topographique y a pas de nikat parce que munoo am ne dama bëgg nikat te munoo am amoo levé topographique mooy bornel terrain bi génnal la lépp lépp ku nekk xam na géomètre également dañuy def lu ñuy wax euh, suivi de chantier ak euh, plan bâtiment plan bâtiment dañ la dañ la ko laaj en général ci euh, booy wut autorisation de construire dañ la koy laaj plan de bâtiment boo bëggee tabax maçon bi da la koy laaj loolu dañ koy def di wax ne am na yenn service yi nga xam ne xam naa du xaj ci vidéo bi MTM da koy def waaye daal jàpp ne MTM service yi nga xam ne bokk na ci service yu gën a am solo yi ñu def bu ñu ne BTP léegi ci biir mooy plomberie maçon électricité yooyu yëpp dafay bokk ci tabax bi maanaam bu dee am na dañu naan man kat euh, plomberie rek xese laa soxla donc am nañu ay plomberie yu agréé bu nekkee da nga soxla maçon am nañ ay maçon yu agréé bu nekkee da nga soxla électricien tamit am nañ ay électricien yu agréé yi nga xam ne mi ngi ci biir cabinet bi donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp dañu wax ne am na yenn vidéo yi ñëw bii di ñëw dañuy wax ci euh, ay vidéo yu am solo yee xam ne surprise yee xam ne ñu ngi leen koy jencal internautes yi di wax ne lii nag la MTM di dundee conseil yi yéen a ko moom waaye services yi ñun ñoo ko moom di gërëm ñëpp